asalaamaaleykum euh, mbokki senegal mbokki àddina dama ñëw pour indil leen benn alerte euh, ginnaaw ba ma nuyoo ñëpp sant ñëpp ci àjjuma ji maa ngi bëgg ma wax leen ne message bii la ñu jot te mu doon message bu concret te message bi ki ko joxe mu nekk ci bànqaas yi gën a kawe ci réewum senegal li ma dénk mu ne ma lii laa bëgg sénégalais yi xam ko général Moussa Fall photo ma ngi nii dama bëgg kenn ku nekk ci ñoom bu ma la waxee ma indil la photoom pour ñu xam kan la général Moussa Fall mooy waa ji ñu bari ci yéen xam ngeen ko ba pare général Moussa Fall général Maysa Sele Ndiaye moom moo nekk nii yen ñep ngeen xam ko général Cheikh sen mom mo nek ni ma bëgg Sénégalais yëpp xam ko dama bëgg ngeen déglu ma nak bu baax kilifa gi gëna kawé kawe ci bànqaas yi gën kawe ci réew mi moma wo munema réunion bi la amal réunion bi ñu amal moy nenañu Macky Sall na pousse élection yi nee nañu une semaine senegal du yëngu te ñoom dinañu assurer sécurité Macky Sall ñu jox Macky Sall garantie ne mën naa pousse élection yi dama leen di wax sénégalais yi laay waxal dafa ne fexeel lii dugg ci nopp sénégalais yi ñoom ñu ngi amal réunion depuis altine la ñu amoon réunion bi lëndi lundi la ñu am réunion bi déglu len ma bu baax les trois généraux ont eu réunion avec une réunion avec Macky Sall lundi man nag comme ni ma len koy waxe man ci Sénégal la bok. man naa ne amaana ci ñi sanc Sénégal la bok donc lu yak Sénégal arrangé ou ma lu tal Sénégal arrangé ou ma lu yëngal Sénégal arrangé ou ma ndax man doomu Sénégal la tek ci Sénégal la bok waaye ñom assurel nañu Macky Sall ne na pousse élection yi te bu ko pousser dara du yëngu ñom nak war ngeen xam sen position ndax wax naa leen ñetti généraux yi ma leen tuddal Maïssa Sele Ndiaye li limu am ci ci aide de camp la du président lolu musul am ci histoire du Sénégal maanaam un un général ne doit pas être un porteur de du président de la république ndax avons lu le cas armée voilà général Cheikh Sen, de la jël Jean Baptiste dafa am le leen général Cheikh le président Ousmane Sonko ñetti généraux yi dañu am dossier CPI Y a ngi commandé palais nervi pour ñu dem assassiner sénégalais yi ñetti généraux am dossier Manam CPI dossier CPI bi ngeen di dégg ñetti généraux yi ñoo général Cheikh Sen dafa am dossier général Maïssa Sella de dafa am dossier général Moussa Fall dafa am dossier donc ne vous demandez pas la question pour lan ñu bëgg a toog ci nguuru Sénégal continuer forcer ndax éminent c'est éminent ñoom xam nañu nous dañuy dem prison yàgg sont dinañ dem yàgg yàgg dinañ leen jàpp donc ñoom ñoo pousse Macky Sall mënumaa ne nag jàpp otage ndax wax dëgg yàlla ñii ñu ngi may ne Macky Sall il n'est plus au contrôle ñii ñu may ne ba léegi Macky Sall mooy doxal donc loolu ba léegi un débat à retenir waaye ñetti généraux yi dañ ma ne mu fanaan ci nopp sénégalais suba bu ñu jógee di taal ndey Sénégal bu leen fàtte ne général Moussa Fall warul fanaan këram xam ngeen fi mu ne général Maysa Sele Ndiaye warta fanaan xam ngeen seen i këru baay xam ngeen seen cosaanu maam général Cheikh euh, euh, euh, Sène warta fanaan xam ngeen seen cosaan manu leen yegg ci ñoom fi ñu nekk ci gendarmerie loolu dernier ku lay doon waaye bu bal bi bu bal yi tàkkee xam ngeen ni ñu ñoo xam ne ñooñu la ñu war a njëkk a seeni ay intérêt am na nag fan yi benn immeuble boo xam ne ñoom génnee nañ ko mi ngi jaay xaw ma ku ko moom ci ñoom ñoom ñett dama leen di yónnee immeuble bi ngeen gis ñoom ñu ngi jaay seeni ay yëf ba a génn dañu fi mu toll nii problème bi ñu am mooy amuñu temps bu doy pour daw te xam nañu ne élection buñ ko tëggee suba xam nañu ne dañuy daanu automatiquement xam nañu ne Bassirou Diomaye Faye day daanu ah amin Bassirou Diomaye Faye mooy jël réew mi xam nañu loolu Amadou Ba ñoom jël nañu décision pour sacrifier ko ba pare Amadou Ba dama bëgg yow nga dégg loolu te mën naa ne sax baax na ci yow ndax yow mi yàgg nga li mu yor ci ñoom ci dossier dafa bari Amadou Ba li mu yor ci dossier ci ñoom dafa bari donc ñoom xam nañu ne aamadu Ba problème la pour ñoom donc Amadou Ba ils vont te sacrifier yow dinañ la sacrifier à tout prix dama bëgg nga xam ko te na ba bëgg nitu Amadou Ba yi xam loolu wax naa leen ko waxaat leen ko dama leen koy waxaat dama leen koy waxaat dama ne ngeen dégluwaat ma bu baax a baax a baax baax dama ne dañuy sacrifier Amadou Ba Macky Sall dana génn suba dina annoncer ne day pousse élection yi par force ce qui est un coup maanaam coup d'état constitutionnel la ci Sénégal maanaam masul am ci histoire u Sénégal président mën a jékki-jékki pousse ay élection présidentielle élection locale yi mën nga koo pousse ci ay prétexte élection législative sax un nga ko pousse ay prétexte pour djubanti élection yi La présidentielle kenn mënu koo pousse ndax mandat président bi dafa jeex li mu digle ak sénégalais yi que na Macky Sall le président Sénégal parce que pour être le président il faut être élu et l'élection biñ ko éliroon moom mi ngi le 25 février Macky Sall le président du Sénégal alerte bi ma am nag pour wax ko sénégalais pour sénégalais yëpp xam ko te ñu jël suñu ay matuwaay Amadou Ba xam leen ne dinañ ko sacrifier waaye comme ni ma ko waxee il a assez de milliards pour sa défendre demal jël say nervi ju ba jàkkaarloo ak Macky Sall parce que Macky Sall sa kaw la jëm Amadou Ba Sall sa kaw la jëm j'ai les preuves les généraux l'ont donné l'assurance qu'il n'a qu'à pousser les élections et pour pousser les élections toi tu te rends arrêté te dañ lay radier tu dinañ la toper euh, euh, aux trahison pour nga xam ko général Moussa Fall général Maïssa Sele Ndiaye général Cheikh Sen, nous avons Macky Sall assurance ne fait dinañu fexe lépp pour assurer la sécurité ñetti délinquant la yoo xam sen dossier mingi ngi CPI pour sénégalais xam ko sen dossier mingi ngi CPI immeuble bi ñu am nak pour jaay mom la leen di indil ni ñu ngi jaay sen lepp ndax ñom ci sen bop woratu leen ñom dara woratu leen ci Sénégal woratu leen ah woratu leen ne dinañ fi nek immeuble bi mi ngi jaay xol leen ko dama leen di won immeuble bi c'est à vendre mi ngi nii déglu leen salaamaaleykum Serif euh, kër gi mi ngi jar euh, dix milliards mi ngi génne quarante cinq million par mois location douzième étage nekk titre foncier Dakar Plateau la nekk commission bi un milliard la dix milliards lay jar commission un milliard mi ngi génne location quarante cinq million douzième étage la mi ngi nekk Dakar Plateau titre foncier individuel la jàpp ci mu jar a gis ñu ngi seeni ay immeuble ñu ngi jaay seeni ay bien Mambay Niang dafa am problème ak Amadou Ba ñoom ñëpp aamadu Ba dafa yor seeni ay dossier lii setal Ousmane Sonko mi ngi ci loxo Amadou Ba rapport IGE bi ngeen xam te àdduna bi yëpp am ko mi ngi ci loxo Amadou Ba aamadu Ba moom moo commandé woon rapport boobu Samba Lawbe Dieng mi defoon rapport bi il a été assassiné te Amadou Ba am na dossier yooyu loolu mooy guerre bi nekk diggante Amadou Ba ak Mame Mbaye Niang dama leen il faut sénégalais yi bàyyi xel sénégalais yi bàyyi xel nekk Macky Sall hold up lay waaja def te loolu bu ko defee troisième mandaa bi mu doon laaj pour may boppam temps pour mu gën a yàq réew mi pour mu gën a tëj ku mel ni Ousmane Sonko ak Jomaay ak ñeneen loolu la bëgg a forcer fi mu ne ñun sénégalais yi nag ci ñun la dépendre lii laa amoon ci message maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yóbbante la mënuma woon fanaan te jotu leen ko waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.